asalaamaaleykum beaucoup internet yi euh, tay dañ ñëwoon fi ci terrain Wembley euh, Wembley nek fi di rue Fama Demba ñëpp xamone ko mu nekkoon cimetière catholique après biñu déloger li nga xamanteni ni moy tombe yi euh ñi di population sor nord bi ñëwoon fi di fi pratiquer sen ay sport di fi def ay football ak yenen ni affaire euh, ñu gis ni ce temps-ci ñi nga xamanteni ni maire Saint-Louis bi daf fi am projet ci bir loolu. ñi nga xamante ni ñooy population bi gis ni liggéey bi dafa yàgg te boobu ba léegi waxuñu leen wow na wala tooy na dañuy ñëw jox baat ñi nga xamante ni ñoo amul baat ñu expliquer ñu nan ak naka la demee jaa ngeen jëf ñu dem te ñëw. ay cimetière tubaab la woon. ASC parisien ASC Déggo ASC Renaissance ASC Jawlinka euh, ñëw dajaloo. def aménager ko def ko muy terrain de football moment biñ koy def terrain nak bon ñun rek fi di subir les conséquences parce que na ay yo football da ngay am ay arbitres da ngay sa yaram ñu des nekk di désinfecter di di ba tay ji ku donc bu terrain ba paré aussi bi ñu ba ci biir euh, Ousmane Ndiaye ñew clôture bi parce que boobu mur bi mu clôture bi jeunes. ñoo fiy tàggatu ay jeunes ñoo fiy tànnal seen yaram. lu ñu fi indi ñu toog fii di revendiquer suñu as terrain bi ñu am parce que tey man boo rappelé tey si terrain bi ni ñun bañ nekk xale fii daan ñëw di fi fubalee ba tey ji terrain bi tey di jur ay jours yi xam ne actuellement ni ñoo leen xàmmee ci fu nekk. nga ñëw jël seen terrain tëj ko nga tëj ko pendant six mois ba ba léegi jeunes yi ñu ngi ñëw te biñ ko tëjee du caagi bu fekkoon ne sax dañ ko tëj. rek mu yomb mais dañu tëj terrain bi ba pare nii dañ koy defar léegi moment bi ñu ko tëjee nii dañ koy defar mais moment boobu noonu dañu gis ni ñoom dañu dem ba ci biir nduroog dañu doon tatane wala dafa am lu ñu doon def wala kii parce que dañu dem ba ci biir ñu gis ni travaux yi demul dikkul. un jour mur bi daanu genn wàll gi daanu ñoom ñu ñëw nii lii c'est pas sûr daaneel li ci des bi ñu daaneel li ci des aussi dem concerté wu ne léegi dañu bëgg defar terrain bi naka la ñuy defaree terrain bi. yi mu wax ni dañ koy def ci biir terrain bi ñun gëm nañ ni xajul ci biir terrain bi parce que boo nee da nga fi def salle gym def fi terrain mini basket yaakaar naa ne boobaa yaa ngi wàññi terrain bi dèjà terrain bi fi nekkoon matul woon réglementaire wul woon tey boo ñëwaatee bëgg dugal loolu ci biir terrain bi defe naa dootul réglementaire terrain bu doon football 11 11 muy xat defe naa boo ñëwee ba dugal si loolu defe naa 7 7 sax mënatul football te fii dafa bëri ay ASC yu fi nekk ñoom ñëpp fii la ñuy entraîner benn terrain bii moom moo am au niveau du Sor Nord. budul loolu ci ay rok rokal lañuy dugg mënu ñu entraîner mënu ñu football suñu ay njabot xamatu ñu fa lañuy dem parce que dañuy dem fenn fu sore fo xamni fa lañuy dem di football parce que il faut ñu am fu ñu tàggate seen yaram. ah environ depuis 4 mois ñu ngi tok di dégg lu kenn xamul quoi ci terrain bi naan dañuy wax ay minutes basket dañ ko fi tawa wala ay terrain de gymnastique lu nekk dal dégg na ko té ñun dañu bëgg rek jox suñu terrain pour entraîner fi parce que fi rek lañu am ñun té fi lañ ko fekk fi lañ bëgg footballer. moment bobu nak ñun dem nañu luñu war moy dem xol problème bi lan la situation bi lan la léegi nak biñ fi jugee après dem nañu mairie léegi buñu démé demee waxtaan nañu ak ñom dem nañ fa 4 fois waxtaan ak ñom mais bo ba léegi biñ fa démé après boole nañu ak technicien wu euh, technicien wu euh, mairie bi mairie bi amna technicien bu nek fofu noonu ADR léegi biñu démé demee nañu ak mom ñu tok réunion ak mom ak maire bi mais léegi biñu réunion ak mom mom mom daf ñu wan ni ñu terrain bi dañ koy défar té entrepreneur bi paré na pour défar ko. léegi man ñu ni ko ñun mais terrain bi dañ koy defar boobu ba léegi travaux yi mënul commencé mu ni terrain bi kat dañ ko dañ si dañ ko commencé defar commencé gas fuy yi euh, fuy yi mais bi ñu demee ba ci biir dañu gis ni ndox dafa doon génn léegi nag léegi nag comme te ndox dafa doon génn léegi dañuy jël si terre bi ñu yóbbu ko laboratoire ñu def ay analyse léegi bu ñu jëlee ci analyse yi bu ñu paree ñu ñëw ñu defar terrain bi mais léegi nag ñun leen ñun en tant que ñun sportif ñu est-ce que loolu lépp mën nañ ko fi xaar imaginez ay jeunes yi nga xam ne chaque jour seen seen xol seen seen jëmukaay fenn rek la muy si terrain bi léegi nga tëj ko ba pare nga ni yow yaa ngi def euh, yaa ngi def ay test mais test yooyu xamaguñu kan lay pare xamaguñu ban jour la euh, la test yi di pare léegi nag ñun leen comme te demee na noonu dem ngeen ba ci biir yéen mënatu leen dem léegi delloo leen ñu suñu terrain yi nu mu gën a yombee. tey autorités yi ñu nga xam ne ñoo gérer terrain bi depuis ba ñu ko waxee ba léegi am na 6 mois 6 ci loolu ay briques kese lañ fi def ñun nag ay xale lañu. ñun ñooy génération bi dañu ñoo war a nekk fii nii war ñu war a fubale impact bi nag bi xam ne loolu la bi war a def man loolu moo ñu metti parce que tey ji ñoom bu fekkee dañ fiy def terrain luñ fi wax loolu mënul nekk parce que mu ñu jël terrain bi xaaj ko dugg ba ci biir biir na ñoom dañ si ñëw def ci ay terrain basket wala def ci ay mini sport yooyu loolu mënul nekk terrain bii nii c'est impossible onze onze sax mënu ko jël ñun nag luñ ci xaar mooy tey xale yi ngay gis nii ñëpp fi lañ war a fubale quatre ASC fi nekk. Saint-Louis amul fu ñu fubale boo xoolee ndar amul espace dex gi jël na fépp terrain bi doom lañu am te ñu ne ba ñu koy may fi fii cimetière la woon kon tey ji ñoom waa mairie bi bu ñu nee ñëw fii nii bëgg fi def dara foog ñu wax ñu elu leer ci bopp nit ñi ak ci xelu nit ñi ñu ne loolu moo raison pour laquelle ñu ñëw fii nii tey ji jéem a revendiquer tey ji à ce que ñu ibbil ñu suñu terrain ñu mun fee ñëw def li nga xam ne ñu loolu la fi daan def parce que tey nekk na li nga xamante ni ñun buñ ko perte xale yi di ñëw dañuy dem di football yi am terrain te loolu mën am benen impact mu ne fa di xex si yeneen terrain bu ba amé ñu nekk ci di tàggatu di tàggatu ba un jour mur bi daanu genn wàll gi daanu ñom ñu ñëw ni li c'est pas sûr daaneel li ci dess buñ ñu daaneel li aussi dem concerté wu ne légui dañu bëgg défar terrain bi naka lañuy défaré terrain bi yi mu wax ni dañ koy def ci biir terrain ñun gëm nañ ni xajul ci biir terrain bi parce que bo lé dañ fi def salle gym def fi terrain mini basket yaakaar naa ni boobaa yaa ngi wàññi terrain bi déjà terrain bi fi nekkoon matul woon réglementaire won. woon. tay bo ñëwaatee bëgg duggal lool ci biir terrain bi defena doto réglementaire terrain bu ne football 11 11 muy xat defena bo boo ñëwee ba dugal si loolu defena 7 7 sax mu mënatul football té fi dafa bari ay ASC yu fi nek ñom ñëpp fi lañuy entraîner benn terrain bi moom mo am au niveau de sort Nord bu dul loolu ci ay rok rokal lañuy dugg dugg ñu entraîner ñu football suñu ay njabot xamatuñu fa lañuy dem parce que dañuy dem fenn bu sore ko xamni fa lañuy dem di football yi parce que il faut ñu am fuñu ñu tàggate seen yaram donc loolu moy suñu problème. ba tax nag léegi population bi génn xale yu ndaw yi génn ñëpp wala ni suñu terrain bii ñu yàq wala ñun na a ñàkk te xamuñu fan la jëm et que luñ ñu wax leerul si suñu bopp lu dul ay explication la parce que dañ leen woon terrain bi 10 mois la travaux yi war def te 10 mois déjà 6 mois dem na 4 mois yi mu ñu fi def leen loo xam ni loolu mun na fi sotti loolu. parce que ñun bu fekkee projet la ñun d'accord nañu si projet bi projet bi amul problème mais projet bi nu ñu tegee projet bi ñun loolu lañu d'accordul parce que tey jii imaginel tey jii terrain bi boo duggee ci biir di nga ko gis boo gisee boo duggee ci biir boo duggee côté gauche bi dañu jëndi 3 mètres ci terrain bi côté gauche ci biir terrain bi ñu def ci benn bâtiment bi nga xam ne dafa jël mètres ci biir terrain bi te terrain bi nga xam ne dañ ko prévoir woon pour yëpp nga jël ko dugal bi te te te Ndar am na espace yu bëri yi nga xam ni mën nañ fa def euh, mën nañ fa def seen accessoire yooyu pourquoi mun ñu choisir fii yëpp fii ba Ngalal wala fii ba Bango wala fii ba feneen pourquoi ñoom ñu ñëw bëgg jël suñu terrain bi kese ñun nga xam ne benn bii rek la am muy suñu patrimoine ñoom ñu ñëw bëgg fi buuxante te espace am na te ñun ñun euh, daanaka boo seetee Sornoor ñun benn benn benn bii rek la ñu am muy wemble kon tey jii nii nii yoon la même bu ñu ko dee defar sax ñu ñëw waxtaan ak ñun ñu xool naka la ñuy tegee euh, naka lañ koy waxee naka lañ koy defaree ànd seeg ñoom ci liggéey bi ñun jël na sax jeunes yi nekk fii nii ñu volonté wu ñëw jàpp ci liggéey mu gaaw gaaw pare pour nga xam ni ñun sax au moins dinañ si bu bu paree ñoom ñu gis seen bopp ñun ñu mën si gis suñu bopp ñun tamit. léegi nag jeunes yi ñoom ñoo taxaw tey jii tembe ni ñoom seen terrain dañ ko bëgg jotaat si anam bu nu ko mën a jote nag et ñuy lancé appel si autorités yi di wax ni bëgguñu yegg foofu c'est-à-dire li ñu bëgg mooy ñu taxaw ak population bi wax leen lu leer a leer et puis terrain bi soxlawuñ fi lu dul clôture mur mur ñu defal lu mur buñ si mënee def benn néegu gardien defal nu fi gardien. muy gérer terrain bi loolu lañu soxlo soxla à part ça bëggaatuñ ci lenen ndax lenen lu ñu fi def defe naa dootul doon terrain ñom nak ñoo xam lan lañ ci djublu en tout cas de toute façon terrain bu mu nekkoon mu mënatu ko nekk loolu la quoi. yaa ngi wax est na gaay inshallah une fois que bu fekkee ñom lu fi na def na nekk sport ak nga xam ne ñun bëgguñu ko moy si loolu ñi xam ñom ñoom nga fi def ay terrain basket une fois que bi xam ñom ñoom fi na def lenen ñun paré lañ de 4 ASC lañ fi nekk 4 ASC lañu lu fi mëna def ñun ñoo leen ëpp fop suñu parents yaa ngi fi ñi xam ne ñoo fi daan joué tey ba nekk fa ay màgget ak génération bi xale yi ak ñëpp lépp lu fi mun a def ñun daa ñëw yàq ko parce que ay temps loolu woon stage lañ la fi def après ñu ñëw ay yàqate ka kon am nañ force bopp tamit loolu la leen wax rek lépp lu fi mën a def bu bokkule sport terrain ñun xam nañ ko yàq wax na leer naññi waaw boo gisee ni euh, terrain bi entrepreneur bi dafa mel ni dafa dem parce que ñun munu mënaguñu xam ndem entrepreneur bi dafa dem parce que ñun bi ñu demee wax ak ñoom ñoom wanaguñ ñu loolu

commencé nag mobiliser wu quartier bi yëpp dugg ci biir euh, quartier bi kenn ku nekk ñu dugg sa biir kër woo carte ay see woo ñëpp ñu ñëw ñun leen léegi nag comme te demee na nii comme te gars yi ñu ngi commencé yóbbu matériel léegi nag comme te loolu am na ñun léegi nañ ñu jël suñu terrain parce que bu fekkee defar la woon te defar bi léegi defaratuñu ñu ngi yóbbu léegi nag ñun ñu jël suñu terrain léegi nag ñun laa ñun mun nañ ko defaral suñu bopp parce que terrain boo xoolee boo duggee ci biir yaa ngi gis terrain bi mu ngi dee. ñun ñuy wax mairie mu tabaxoon ñun mii rek la ñu soxla instant ak gardien pour ñu mën eggale suñu entraînement parce que environ fii football bi doxatul lépp si am environ football moom doxatu fi moom. kel terrain lañ ci def waaw nañ ko def terrain boo xam ne ñun miir kese lañ soxla terrain miir loolu na xanaa nag ak benn ak deux mois rek mën nekk nag moo gën ñu fi nekk di xamu dañu lëre nañu wax terrain bi lan lañ ciy def moo gën sinon dëgg yàlla wax billaay ñun kii moom wax dëgg yàlla lépp lu fi mun def ñu ne renkat di déjoué billaay ñoo ko déggandoo ginnaaw ba ñu joxee baat ñi nga xamante ni amuñu baat li ñu wax nee nañ li ñu wax nee nañ dañoo namm pratiquer li nga xamante ni moom mooy sport dañu gis ni entreprise bi nga xamante ni moom moo gagné chantier bi semaine passée dañu gis mu commencé yóbbu ay matériel am ñu demandé à que projet bi dafa arrêté wala dafay continuer ba léegi lu ci mënta am daal mooy ñoom taxaw nañ tembe ni dañuy ñëw pour récupérer waat li nga xamante ni mooy seen terrain parce zone bi amna 4 ASC yo xamanteni amuñu fuñu jëm xamuñu fa lañ mëna footballé fubalee fudul fii euh, je crois que yeen ñi nga xamanteni yeen ay autorités compétents yi euh, invité na leen tay ci sujet bi bu fekké mën ngeen leeral population bi nga xamanteni mom moy zone 3 de l'ODCAV Saint-Louis ñu mëna xam lan mo tax sen terrain bi booba légui mënuñu ko pratiquer di leen jox dig dajé ak yeneen numéro ci émission jox baat ñi amul baat di jaay jëfël ñëpp di leen wax wasalaam